léegi rek la ma mbokk mu baax Souleymane Diouf di nettali benn wëllëri nitu yàlla moo xam ne dafa woo doom ji mu ñëw Souleymane Diouf mu ngi dëkk fii sëriñ Maodo wala Mama Alpha ñoom ñëpp benn lañ bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mu ne góor gi dafa woo doom ji ba mu ñëw ne ko bés sàngam laay faatu bu may faatu day fekk ma jàng suratu yaasin ba ci saar ba ci aaya sàngam su ma ko jàngee ba ci aaye sàngam ci la sama roox di dem na nga wàccee sama bët te miw te muur ma bés bi jot mu woo doom ji ne ko kaay bés bi ma la waxoon jot na jarul ragal tey la jàpp ba set tëdd ci kaw lalam jaaxaan di jàng soratu yaasin ba aaye bi ne ko léegi tey ma yegsi ci aaye bi aaye boobu laa la doon wax su ma ciy toll rek la sama roox di dem nanga wàccee samay bët te muur ma door a woote bi mu yegsee ci aaya bi rek roox gi dem doom ji defal ko li mu wàccee bët yi muur ko door a woote ñu ne ko góor gi jàpp fii léegi mu ne dem na de nii la ma ko waxee woon kañ ñépp a war a yegg foofu nag du kiraama na tiijaan yi moo ko wax ñépp a war a yegg foofu ku fa yeggul rek sa ittee des ah ñépp a fa war a yegg du exception du xusuusiya du exception ñépp a fa war a yegg ku sellal te jaamu yàlla rek yàlla mën na la xamal kañ ngay dem ak nooy demee ak ci yenn condition ngay deme nga wax ko nag ak nga noppi waaw na Tiijaan yi moo ko wax turandoom turandoo Cheikh Sidi Ahmad Tiijaan si al maktum Seydina Cheikh moo ne sama taalibe te loolu bu ko waxee jullit ñépp la ci namm maanaam taalibe mii la am sañ sañ wax ak ñoom waaye martaba boo xam ne la jullit ñépp mën nañ ci yegg mu ne sama taalibe war na am itte ba balaa génn àddina xam voisin am ci àjjana dëkkandoom ca àjjana kon kooku waxul kañ ngay dee mu ne sama taalibe war naa def itte ba balaa génn àddina xam kan la ko yàlla booleel mu feggoog moom àjjana ëllëg ni nga amee sa dëkkandoor fii xam ne sémbén mii sama dëkkandoor la xam ne njaay mii sama dëkkandoor la ndax ki yéen ne sama ndeyjoor kii ne sama càmmoñ ni nga xamee ne say dëkkaale say dëkkaale lañ Seydina Cheikh nee na defal itte ba xam àjjana ëllëg ñooy dëkkal ak say soxna sax waaw yonent bi sallallahu wax na ko almaru ma man ahabba waaw fa tabaarakallaahu yii yëpp nag waxuñ ko ngir nit ñi bëgg yéemoo kiraamaak yooyu amul solo man soxlawuma ay waxu kiraama xam nga lu ma itteel man wax luy jëriñ nit ñi ba am dépense kiraama amul solo xam nga lu am solo fexe ba nit ñi mën a am dépense am tranquillité mën a jaamu yàlla loolu mooy moo war a nekk suñu itte waaye naaw dem asamaan ak biddiw yeeg malaaka yi loolu concerné wuñu loolu ku rek lay concerné bu loolu du suñu affaire malaaka yi ñoo leen ëpp sañ-sañ ci yàlla loolu lañ xamul ñoom laa yaasuuna allaha ma amaruhum wa yafaluuna ma yumaruun loolu la leen yàlla bind ñun ñoo leen ëpp sañ-sañ ci yàlla ndax ñoom ñoom ñooy dox ci suñu waaw waaye ñun doxuñu ci seen waaw kon nekk fii di leen yéem amut solo fexeel ba malaaka yi di yéemu ci yow moo war a nekk jaamu yàlla bi yéem leen ni yoon ci yàlla Idris defoon jaamu yàlla ba yéem malakul mawti yéem Jibril xam nga ne ku yéem Jibril te kooku du xeetu yonent bi te olamaawul ummati kal anbiya u bani israil donte nag am na ñu ne du xadis waaye wax bu rafet la rek te neex naa gëm ndax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuuminuuna am na ñu ne dañu wax ne yónent bi moo wax ni sama xeet boroom xam-xam ya ca nekk comme waxul ne dañ mel ni de déedéet comme boo déggee ñu ne comme rek mooy ci njub ak jëf waaye jotoo ko ci daraja waxul ne samay xeet wi ñoo raw yonent yu njëkk yi déedéet démb rek maa ngi koy wax imam Moussa Gueye ma ne ko nit ñi dañuy fàtte doole yonent yonent bi gën a néew daraja ci an 124 mille yonent yi xaw ma ko nag te yàlla bu ma ko xam ndax itteel amul solo pour nga xam ko boo ko xamee àppat ah, waaw yonent bi gën a néew daraja ci anbiyaaw yi cent vingt quatre mille yi ka ca gën a néew daraja ci ñoom boo dajalee woon awliyaul rahman yépp dalee ci cheikhuna yi laa wax jaar ci cheikh abdul qadir yi dem ba ca imam uh, uh, arabil haatimi ñoom ñépp laa wax unanimité ku fiy waliyu boo jëloon waliyu yépp teg ci benn balance jël yonent boobu gën a néew daraja teg ci benn balance mu daaneel leen waxuma nag ñun mboco mbocco yi nga xam ne poñetu matt lañ waxuma ñun poñet yi de ponkal yi laa wax ngànj yi léegi sax paase naa ngànj yi jëlal ngànj yi ak man wa man fil ardi jamian ak mboolem kuy doomu aadama min la du maam aadama alayhi salaatu wasalaam ila nafxati fi suur nga jël ñépp dajale leen teg leen ci benn balance jël benn yonant boo xam ne yonant kese la amul risaala nubuwa rek la am teg ko ci balance mu daaneel ñépp nit ñi dañ foog ne yonant caaxal na <coughs> baax na ba ëllëg moo wëli yi ngay tëkkale ak ab yonant fii lu fi waaye rëy rëy kaala wali yu sempal nga nekkal xutb nekkal fard nekkal jaami loo mën a nekk doo yonent daraja ju la neex na ràngool Chérif Ibrahima yéene na la ko waaye wóor na ma ne doo yonent moom jeex na te benn yonent nag boo dajale woon àddina bi yépp moo leen ëpp pouvoir ca yàlla nit ñi dañ fàtte ne yonent yonent beneen affaire la yonent bu amul risaala laa wax ba am risaala nag kenn xamul xayma mooy yonent bu yàlla yónni ne ko demal ma ci barab sàngam nubuwa mooy yonent bi yàlla sol ne ko yonent nga waaye ma la fen toogal mbaax gi ma dënk ci bi ma dënkaane ci yow ku ñëw soxla ko jox ko ko ku ma buux ci sa kaw wan ko ko waaye bul génn ci mbedd mi di ko wax loolay nubuwa risaala mooy ki yàlla boole nubuwa ak risaala kenn du am nubuwa nag nit mën na ñàkk nubu am nubuwa te ñàkk risaala waaye koo dégg ne ci risaala yi am na ci rek nubuwa am na ko ki am nubuwa am risaala nag mooy ki yàlla ne ko déy naa la sama mbir foo nekk maa ngi wax ak yow duma dëñ di wax ak yow waaye dugal ci biir dëkk bi koo mën a nga convaincre ko lu la të laaj ma ma wax la noo koy defee Cheikhul Hadj Abdou daan ko misaal ne mu ngi mel ni kiy liggéey ci biir poste bi te du ko génn ak ki nga xam ne moom la ñuy jox lettre yi mu di ko yóbbu ñoom ñépp ci poste la ñuy liggéeyee waaye bokkuñu fonction yal nañu yàlla defal sutura yal nañu yàlla defal sutura gis nga yii yépp nag li muy neex neex am yar ak teggin moo koy tax mooy tax yegg ca yàlla billaahi wal kitaabi ku amut yar amoo teggin buñ la jiiñee ne am nga yàlla du dëkk ndax yàlla moom ñàkk yar yeggu fa ñàkk teggin yeggu fa soo amul yar amoo teggin buñ la jiiñee yàlla dañ la ko jiiñ waaye du dëkk dëgg nañu góorgóorlu nañu góorgóorlu àddina yàggul yàgg na sax ñun ñu fi jaar ñoo yàggut ñu profitoo ci balaa ñuy jóg léegi buñ joxee ñi ñuy jox tarixa bi ba pare dama bëgg bu ñu leen joxee tarixa bi ñi koy jël ñu ñaanal ñii ma fiy tudd dëj yu bare am barki démb yépp ci dëj laa yendu xam ngeen ko alaaji Abib Seck ñaare ku ma xam-xam na ko wéradi rek a taxoon at yi yépp gisuñ ko alaaji Abib Seck gis nga li may wax moom alxames la wax ak man téléphone lu ne mu wax kook man indil ma xale yi dama leen namm wax ak man lu yàgg coupé ba yàgg ci waaw bañ maa seet si rek bu ma dee boom xanaa nga ñëw jullee ma boobu doom ji nee na ma samedi la ko woo ne ko bu ma dee bu ma kenn yóbbu ngaay ga ma dëkk bu ma kenn yóbbu Tiwaawoon gi ma yaakaar suul leen ma Pikine walla Yoof te boobu dara lalu ko samedi ba si gàmmo gi la ko wax loolu dimanche altine mu woo doom ji pap yónni ko yi mu koy yónni yépp woo benn xaritam mu ñëw mu génnee chèque yi won ko li mu am banque ak li mu amul yépp ñu añandoor ñoom ñett añ ba yeggal fi mu añee la faatoo fi mu añee ba pare jógul fi mu doon añee foofu la faatoo koy mu ne seen ñaari maam yee bokk ndey ak baay man mii maa ko jullee maa ko dugal it ci bàmmeel bi may jeexale sama kàddu nag gannaaw bu ma nuyee kilifa yi fi ne yépp di ci jiital Cheikh Ahmad yi ñang bu suñu baay alxaaji Tijaan ñan di ci teg say sekk bii toog nga xam ne moom it ci ñun la bokk ma profitoo ci nag wax dëgg yàlla sant mboolem ñi ma sopp ñépp ak fu ñu mën a ne ci àddina bi su ma tuddee rek juum dafa am ñu ma woo léegi tuuba wax dëgg yàlla ne ma ñun dañ lay seetaan dañ laa sopp fa tabaarakallaahu am ñoo xam ne ñii États-Unis du ma du ma lim fépp rek ci àddina bi cinq continents yi daal ku fi nekk sopp ñu yëgal ne noo ma soppee soppee naa la nu ko ëpp noo ma bëggee rek bëggee naa la nu ko raw Cheikhul Hadj Abdou Aziz nag nee na maa la sopp maa la bëgg maa la raw fayu ko ñu ne ko lu koy fay mu ne yëg mu ne maa la bëgg maa la sopp mu ne maa la raw fayu ko ñu ne ko lu koy fay mu ne yëg yëg rek yëg ki la sopp yëg ko rek waaw waaw lii moo fi wax yépp mboolem ñi ñu sopp ci àddina bi ak fuñ mën a nekk ci àddina bi rek ndeysaan ki ki ma mujj woo Tuuba mu ngi tudd nee na Sidi Mbay am ku ma woo dafa raccroché rek am ku ma woo Fuuta moom it nee mu ngi tudd Alaaji Mbaay waaw moom it ndeysaan lu ne lañ wax te kenn ci ñoom mosuma gis waaw lu ne lañ wax Sidi Sidi mbay boobu nekk Touba lu ne la wax ci lu baax lu rafet lu ne wax na ko ñun nag loolu lañ bëgg ñëpp dundee ko waaw ah, ñëpp am comportement boobu moo tax fu waay mën a ne fu soppe mën a nekk sopp ñu te yàlla tax ñu it sopp nañu ko te yàlla tax ku ñu bëgg te yàlla tax bëgg nañu la te yàlla tax ak foo mën a nekk ci nit ak ci jinne ak ci malaayika fa tabaarakallaahu man aw ma bëkk néeg ndax man bëkk néeg laa war a doon moo tax dëju alaaja bi bi bi nit ñi di wax ñu eh, kii eh, nu mu tuddati alaaji Mor Seck boobu dend ak moom bëgg a jottali ma ne ko déet maa war a jullee néew bi bàyyi kuy wax ma jottalil la rek amul problème ña fa wax ñëpp maa leen jottalil ma ne ko jottali dafa am géwél ak géer yonent bi mooy géwél bu mag bi di jottali amul géwél ak géer yónnant bi bu dee géwél am na mooy géwél bi gën a rëy ci géwél yi mooy géwél bi mag ci géwél yi ndax moo jottali li gën a rëy ci àddina mooy alxuraan xol lu muy firi neel jeex na ah bu dee géwél am na yónnant bee géwél bi gën a mag kon nag nañ jàpp bés ni tey kon mooy géwél bi gën a mag seen mbokk la Babacar nee na seen mbokk la lan mooy géwél ak géer bañ jël jottali rek pour jox ko géwél ni ko del jottali non yonent bi sallallahu alayhi wa li jógee ci yàlla yépp moo ko jottali muy alquran alquran ku ko mën a jottali ku dul yonent bi law anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xasiyatillaahi dënn ba ko àttan mu jottali ko koo koy rasulullahi moo tax yàlla ne ko nag du yow de alam nashrah laka sadrak maa nooyal sa dënn bi yaatal ko ba mu xaj gën a dëgër montagne ba du toj wa wadaana anka wizrak moo tax alladi anqada dahrak bu la kenn nax nag maag yow la ba ëllëg wa rafaanaa laka zikrak fu ñu la tuddee tudd ma ak li may fiir fiir may naa la ko fu ma tuddee rek tudd la ma la ko may wa rafaanaa laka zikrak laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullahi mu ne ko fiir naa lool waaye maa la ko may fu ñu ma tuddee rek tudd la wa rafa'na laka zikrak moo tax bu la dara jaaxal fa innama al usri jafe na boo fii ci àddina jafe na waaye ëllëg day yomb ba fow moo tax boo ci noppee fa iza faraxta fansab waaye nag bul fàtte wa ila rabbika farxab koo koy rasulullah moo gën ñépp man damay jaaxle ku fi bëgg a jéggi yonent bi dem feneen foo jëm ku fi bëgg a jéggi yonent bi rek jëm feneen foo jëm ñi ñiñ fi naw ñëpp yonent bi lañ leen nawe nañ ma wax rek kuñ fi naw te nawee wuñ la yonent bi bu dee Cheikhul Xadim ku tax ñu naw ko sallallahu alayhi wa bu dee Cheikhul Xaaji Malik ku tax ñu naw ko bu dee maam Limaamu Laay ku tax ñu naw ko bu dee Cheikh Al Xaaji Fuuti ku tax ñu naw ko bu dee maam Buukunta ku tax ñu ñaw naw ko bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee ku tax ñu naw kenn yonent bi rek la wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla ne ko maa la bëgg ba sama ngénneel ci yow xamoo fu mu toll sax wa nekk na te du diñ di nekk mukk fadlullaahi ngeneelu yàlla aleyka ci yow ci mbindeef yépp aziman di lu màgg ba yowmal xiyaam day màgg rek nga tax billaay ku la gën a bëgg yonent bi gën laa rëcc ku la gën a ëpp cofeel ci yonent bi moo la raw ci yàlla yonent bi sayyidatuna Aïcha moo ko laaj ku la sopp nuñ koy xamee mu ne kemte cofeelam ci yonent bi ci man loolu moom rekk ko ko sañ ñu ne ko ku bëgg yàlla nuñ koy xamee mu ne kemte laay cofeelam ci man ñu ne ko ku bëgg alxuraan na Aïcha koy laaj de ku bëgg alxuraan nuñ koy xamee mu ne kemte laay cofeelam ci man ni cofeelam toll ci man noonu la cofeelam toll ci alxuraan noonu la cofeelam toll ci yàlla moo tax yàlla feelu ko nag tontul ko boppam in kuntum tuhibbuuna llaaha moom rek ko ko sañ te dënn bi du toj ku ko waxoon ku dul moom yàlla damm sa baaraam toj sa dënn in kuntum tuhibbuuna llaaha fattabi'uuni moom rek ko am sallallahu alayhi wa sallam te waxu ko de yàllaa ko ko waxal jaare ko ci làmmiñam ne ko watt ci alquran ji bëgg jàng bañ jàng bëgg xool bañ xool ca kat nag dëgg-dëgg suñ sëriñ si li ñuy baax baax seen tur yi ñëwul ci alxuraan nag <laughs> ah dañ am njort lu rafet ci ñoom rek li ñuy baax baax seexu na tiijaane ko mën a doon turam ñëwul ci alxuraan saaba yi sax seen tur yi ñëwul ci alxuraan lu dul benn saaba te gis nga gënut ci saaba yi moo lay wan ne yàlla la gën a suufe lay jël Zeyd jaam la woon moom la turam ñëw wàtt ci alquran amul gannaaw zeyd gisuma beneen tur bu ñëw ci alquran ci turu saxaaba yi wàtt ni turam amul te zeyd jaam la woon mooy gis nga yàlla looy sous-estimer di ko minimiser loolu lay jël yëkkati ko ca kaw looy sous-estimer di ko minimiser rek yàlla loolu lay jël yëkkati ko ca kaw wan la ne bindoo ko maa ko bind wallahu yaxluqu wa yaxtaaru maa kaana lahumul xiyara ma bind may tànn tànneef newul ci seen loxo bàyyi leen ma man yàlla ma tànn moo tax fa lamma qadaa zeydun minha wataran zawajnaakaha li kay laa yakuna xarajun zeyd rek am loolu te pourtant seydna abubakar ko gën seydna omar ko gën seydna osmaan ko gën seydna ali ko gën loolu nag boo koy wax nit ñi dañ naan moom moo xam ki gën xaw ma ki gën yàlla xam ki gën classé leen man xaw ma ku gën yàlla mi xam ki gën moo ko wax classé leen du ma wax ne yonent bee gën ci limbind yonent bee taxaw ne sama saxaaba yi niñ magantee lañ gënante niñ magantee toppantee xulafaawul arba yi noonu lañ gënante Seydina Aboubacar moo gannaaw yonent bi moo sës ci ngëneel Seydina Omar topp ci Seydina Ousmane topp ci Seydina Ali topp ci ñii nag gannaaw ñii ku baaxati rek dañuy jël sa mbaax natt ko ci seen mbaax waaw ñoom la yonent bi joxoy ñoon ña xulafaa urrashidina nee na ñii moom fi ma teg sama tànk lañ koy teg li ma doon def la ñuy def duñ ci dindi virgule duñ ci yokk virgule su ngeen ko xamee moo am su ngeen ko xamut moo am moo tax ñii la joxo joxoñoon ne ñooy xulafaa urashidina ñooy ñi may wutu te jub kocc ku baaxati nag ci ñii lañ lay natt moo tax Maodo lu mu wax waxam bu garaaw bi ba mu koy wax xulafaawul arba la wax fuñ gannaaw ñoom fuñ fu yonent bi teggee ma teg fuñ ñeenteele yonent bi ma juróomeel leen du loolu la wax mu ne xam naa ko mën naa ko te maa ngi ci la mu ne xam naa ko mën naa ko maa ngi ci la koy maye xam naa ko mën naa ko te maa ngi ci mu ne ba ëllëg ku xam Malick dinga xam Malick ku xamut Malick di nga xam Malick lii la wax te mooy dëgg mu ne jom a koy maye am naa jom ji mu ne jaamu yàlla koy maye maa ngi ci fite koy maye am naa ko wax bu garaw la beneen yoon dinaa ci wax lu bari li tax mu ñeme ko ba wax ko ah talxata nekk fi zubayri nekk fi jaafar nekk fi ñeneen nekk fi hamza ñooñu ñëpp nekk fi Seydi Hadji taxaw ñëw ci dernier siècle yi taxaw ne fu ñii ñeenteelee yonent bi ma taxaw man Malick juróomeel leen Omar ibnul Abdul Aziz nekk fi bañ tuddee woon ko xaamisul xulafaa ki juróomeel xulafaa urashidina yi te yonent bi tudd ko woon ndax lan njub maandu ak mbaax ma dugal foofu benn question rek la muy baax baax fekkee na yonent bi maa la ko laaj sama doom nga te am nga sañ-sañ wax fi naa la jox kàddu sax sëñ Ahmed déedéet fekkeewul yonent bi Omar ibnu Abdul Aziz ku ko jur xaamisul xulafa fekkeewul yonent bi lu tax ñu naan Omar ibnu Abdul Aziz Abdul Aziz a ko jur. Hmm? surtout Seydina Omar la ok Abdul Aziz a ko jur Abdul Aziz boobu ku ko jur Omar ibn Abd Xattaab su ma juumul moom est-ce que gis na maamam sax loolu lay wax bi Seydina Omar te bu dee deret la rek kon tut hmm. deret yañ am la Malik am dere ji ñu am la Seydina Abu Seydil Xaaju Malik am Maodo deretu yonent bi la am Maodo shérif la Seydul Xaaju Malik la maam borom Touba shérif la léeg nga dégg ku naan Seydil Xaaju Malik serif la bëgg a écarter sëñ Touba waaw wax ma sëñ Touba ak Seydil Malik luñ bokk bokkuñ deret ñu bokkuñ maam maaram nga bëgg ne Maodo serif la sëñ Touba du shérif waaye soxor nga di. xanaa bokkatuñ maam Maaram mbakke damay laaj je damay poser question est-ce que Seydi Hadji Malick ak maam Borom Touba ñoo bokk maam Maaram Mbàkke wala bokkuñu ko du mooy seen maam waa léegi naka nga nangoo sharafu Seydul xaaji Malick bañal sëñ Touba sharafam sëñ Touba shérif la sëtu yonent bi la xaqan boo ko nangulee Maodo rek nangul ko sëñ Touba. boo ko bañalee Maodo bañal ko Sëñ Tuuba ndax ñoo bokk seen maam Maaram Mbàkke mu ngi mel ni nga bëgg a toog ne Assane sëtu yonent bi la <laughs> Ousseynou du sëtu yonent bi loolu nga bëgg a wax mënul nekk nit ñi tamit loo fanatique fanatik tegal mbir yi ci yoon loo xër xër jaaral mbir yi ci yoon murit yi du ji suñuy noon ñu nit duñ nooni murit yi ñoo bokk lépp lu ñuy wax ak lépp lu ñuy doxal ñoo ko bokk ñun ñëpp diine juy dox rek lañ bëgg yàlla lim am xajul ci genn kër ku bëgg a def ñëpp murit yaa sonal nit ñi ku bëgg a ñëpp tiijaan yaa sonal nit ñi ku bëgg ñëpp nekk laayeen xaadir yaa sonal nit ñi sëñ bi nañ bàyyi nit ñi ku ne lam gëm ñu gëm ñu ormaalal ko ko ba ëllëg ca kanamu yàlla ku am loo ko ko <laughs> ku ne loo am nga séddu leneen la mu bind jaam ñi amu ko nga bëgg kenn am ko yàlla ñàkk ko nag moom ci coobareem la walaw shaa allahu la hadakum ajmain yàlla ne su ma neexoon yéen ñépp ngeen jub ñi ma bind ñépp jub mu ne waaye man la neex ma bàyyi leen wute yi ba ëllëg ma àtte yàlla mi am justice bu toll noonu am tolérance bu toll noonu ñun mënuñ ko roy ci yàlla yàlla mi nga xam ne benn fraction de seconde bu ko neexoon ñépp gëm mu bàyyi kenn ku nekk di cippi cippi naan yàlla amut booy xool sax ki naan yàlla amut moom yàlla moom la gën a teral dëgg la wala dëgg ki taxaw naan yéen dangeen di font rek seen julli yi bàyyi leen ko yàlla amut booy xool sax kookoo gën a tedd ci teraanga àddina yi moo ko ëppale ñëpp Bob Marley ku ko gën a tegg tedd am koo xam ne jaa la daan wax jaa rastafaraay jaa xam ngeen lu muy tegg ci anglais mooy jë ah moom yàlla la def boppam moom rastamaan yëpp bopp mooy seen yàlla ah yéen xamu leen loolu ah, waaw kon yéen du ngeen di suivre actualité ah ñi taxaw fii ñëpp ne yàlla amul ñoo gën a tedd ci teraangay àddina yi bopp bi muy ñëw fii ci ci Afrique rek fu ne waay jógee na fa utali ko Michael nag. Jackson nag ah Michael Jackson nag doonte nit ñaa ngi naan tuub naa tuubut loolu concerné wu ma bu tuubee concerné wu ma bu tuubut concerné wu ma affaire am la ak yàlla waaye daal liñ ko xamee woon kenn ci ñun masu koo gis ca jàkka ja muy julli ku ko mas a gis ci jàkka na ko wax wala ñu génnee vidéo yi kii la rek ay exception la nii rek di wax waaye kenn amu ci preuve yàlla mi ci am preuve nag nañ bàyyi Michael Jackson ak yàlla waaye daal li wér mooy moo fi indi hip hop bi luñ koy waxee ah pop le roi du pop du moom la waaw ñaan nag moom lim jaay ci kaset kenn jaay ko ci àddina bi wala déet lim jaay ci kaset kenn jaay ko ci àddina bi lim am ci alal ñi ko am néew na te xamul fu yàlla féete jeex na moo gën a lim xamloo ci doomu aadama benn sëriñ xamloowu ko fi benn nit kon yëf yi dama bëgg woon nit ñi ne leen yëf yi newul ci mbooloo li may kel xamloo ci doomu aadama benn sëriñ xamloowu ko nit ci kaw suuf dëgg la wala du dëgg maali Michael li xamloo ci àddina bi benn sëriñ xamloowu ko benn nit ci àddina bi kon yëf yi du mbooloo waaw waaw jeex na ñetti yàlla nga jënd billet denc di xaar ah sëriñ bu fi ut yàlla ba am ko nattal sa bopp ci maykel ba xam damay won nit ñi rek nattal sa bopp ci Michael waxuma la sax sori na demal stade de l'amitié ne gis sëriñ bi fay pour voir di pour voir le marabout c'est cinq mille francs billaay boo amee mille personnes xamal ne jàmbar nga ah mille boo ko amee rek bari na waxuma la ak soixante mille spectateurs mooy fees stade l'amitié xam nga lu may wone damay wone ne yëf yi nekkul ci mbooloo mu bari li yàlla bëgg la nekk sëriñ bi lu néew new mbooloo te ci nekk ci li yàlla bëgg moo représenté yàlla ci kaw suuf inni ko fil ardi xalifatan doonte benn nit a ko topp mooy ki saf yàlla doonte kenn topp ko mooy ki saf yàlla moo tax yàlla buy wax sax li ci ëpp ci àjjana du indi pluriel maanaam du indi wa qalilun min ibadiya shakur wa inna akthara naas la yaalamuun fu muy tuddee majorité rek day wane ne ay union ay innocent lañ xamuñ sax lu xew wa kim wa kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan lu tax bi iznillah wallahu maa sabirin yonent bi keroog bi muy dem di takk badar xare 313 rek la woon 70 yi rek amoon ngànnaay yi ñu ci des ñëpp amuñ ngànnaay 70 personne rek amoon ngànnaay yi ñi ci des ñëpp yoruñ dara bi muy séddale 70 yi ba mu des benn <coughs> benn saxaaba bu jub si muy ukaasa ukaasatu mu ne ko yonent bi ne ko ngànnaay yi jeex na mu jooy ne ko danga ma gis rek sama tuutiwaay bi moo tax joxoo ma ngànnaay jox ko borom doole yonent bi ne ko ngànnaay yee jeex mu ne ko du loolu jox ma ngànnaay ma dem ñu rey ma wala ma rey loolu laa bëgg ndax sa bakkan bi moo gën a cher sama bos waaw fi ngànnaay yi jeexee baaxul arrangé wu ma man ngànnaay laa bëgg comme ñépp yonent bi xool xool gis ngànnaay yi jeex mu gis genn giliti matt gu fa desoon mooy matt muñ doon taalee gilit ba matt mi ñu fay ko ba safara si jeex mu des gilitu matt gi yonent bi jël gilit gi jox ko mu ne ko lii nag lii lu mën yonent bi ne ko demal rek sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom mujj moom it mu am pas-pas jël gilit gi di ko xeexee ci biir bu xàccee muy jaasi bu dóoree muy jaasi bu xoolee muy gilit Maodo indi na ko ci mii mii bu xàccee muy jaasi bu dóoree mu dagg di jaasi bu xoolaatee muy gilit yéefar yi ñoom mujj naan moytu leen borom gilit gi ah, kooku kenn du ah, moytu leen borom gilit gi yorul gilit jaasi la ah, fekk day xàcc gilit gi yow nga engage ko foog ne gilit la buy dóor muy jaasi ñu gis mu xalangu mu ji gaa yi naan moytu leen borom gilit gi yorul gilit jaasi la yonent bi kenn du moom ah, am ci kenn koo xam ne ndeysaan bët bi lañ tuur dañ ko dóor tal bët bi dali fële moom amul soxla amatul soxla ci jihaat ji dawul nag muy wër di xool di xool ba gis fi bët bi tuuru mu ne ko caq téye waaxu ba fekk yonent bi fi mu taxaw ci biir xare bi mu ne ko yaa rasulallah mu ne ko la béyk mu ne ko xool ma mu xool ko mu ne ko sama benn bët bi du gis nga dafa tuuru mu ne ko waaw léegi nag mu ne ko xaw ma di ma deyee baax na waaye bu ma ñibbee téyel bët baa ngi nii dama takk séet bàyyi ko fa te bi may ñëw pattu ma su ma deyee baax na loolu la yàlla nam ma ci man waaye su ma ñibbee na bët bi melaat ni bët bi waaye illaa ma xam ne yàlla yónnewu la bët bi boole ci ne yàlla bu mu dee ci jihaat ji muy xeex di xeex di xeex ba jihaat ji jeex mu ñëw ci yonent bi ne ko nakam jihaat ji jeex na te dañuy ñibbi yonent bi ne ko mu ne ko sama bët baa ngi nii te séet laa takk te ciitalaguma te bi may ñëw fii ñaari bët yu set wecc laa yor tey benn patt laa yor bu ma yeggee dootuma nopp yonent bi ne ko bismillah ne jël bi bët bi ne pat bët bi teguwaat fa mu teguwaat mu ne ko ndax yaa ngi gis mu ne ko moo gën a leer bii sax ku mën na def bët bu tuuru ophtalmologue yi nga xam ne boo ci demoon ay mi centaine de millions lañ lañ lay laaj mu jël bët bi ne ko taf ci bët bi ne ko xoolal mu xool mu ne ko ndax yaa ngi gis mu ne ko moo gën a leer bii sax ba nim dee bët boobu moo gën a leer mësul wànnent gannaaw bi ko yonent bi delloowaatee mësul wànnent mësul feebar buy nelaw sax bët boobu du gëmm <laughs> billaahi kuñ ne yàgg yonent bee tolloo ndax nañ la tolloowul ak kenn te kenn du tolloog moom moromantewut kenn te kenn du moromanteeg moom loolu la yàlla dogal ci moom yàlla na ñu yàlla taas ci barkeem ci barke guddi gi